salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant waaw comme d'habitude képp koo xam ne nii aboneekoo goo ci sunu chaîne YouTube bi dañ lay woo pour nga ñëw abonné c'est simple motul sax benn seconde nga activer cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu leen rawati mais surtout gars yi ngeen di liker di commenter di partager loolu dafay baax pour vidéo yi gën a mën a am jëmm YouTube gën ñoo mën a jox gëdd di partage suñu vidéo te it duñu mën a euh, gën a teg ci temps daal loolu daal lañ leen di ñaax ngeen def ko ngir mën ñoo récompenser ci effort bi nga xam ne ñu ngi koy def euh, ci football Sénégal football mondial football africain ba ci football euh, européen pour ngeen jot information yi ci jàmm ak salaam xibaar gi ñu di jox nii nag dernière minute mën naa ni euh, Sadio Mané suñu international sénégalais clubam euh, bii di Bayern mi doon war a jàmmaarloog ki ñu naan euh, Manchester City match retour Ligue des champions match bu décisif nag 3-0 lañ leen ci match aller bi retour bi nag ñu bëgg remontada ci noonee nag Thomas Tuchel am na yaakaar ci ay joueurs am waaye defaat na choix fort jëlaat na risque jël ki ñu naan Müller teg ko ci banc bi Sadio Mané suñu international sénégalais moom it tey ci banc bi la démarré bi de même a ak Davis Davis bi nga xam ne yàgg naa jàppale Bayern Munich eh, ci laaf gauche bi nga xam ne il était étincelant exceptionnel rapide vif en plus décisif ay passam ak biyom na jàppale ki ñu naan Bayern leen onze de bi nga xam ne eh, Bayern teg na ko contre Manchester City Thomas Tuchel eh, gis nañu ci camp yi comme d'habitude Sommer moo fa nekk ci ak bi ñu ngi fa am paire Upamecano ak ki ñu ñi nga xam ne keroog dañoo passé complètement à côté ci nag ñu ngi fa am ak ñu naan Pavard comme d'habitude moom jamono ji imposé na ci laaf gauche bi nag ñu ngi fa am ki ñu naan euh, mu doon loo xam ne nii euh, bett na ñëpp Davis ñëpp nga doon xaar waaye actuellement Cancelo moom it joueur top mondial la nag toj na City euh, toj na Juventus Turin waaye ba léegi tojagul xeeti Bayern ñu ngi xaar nag ba xam tey na leen jàppale te miin na Manchester City ñu xool lan la mën a apporter ki ñu naan Bayern Munich ci milieu ñu ngi fa am trio Kimmich Goretzka ak ki ñu naan Musiala ñoom ñoo nekk foofee ci attaque bi nag ñu ngi fa am euh, trio Leroy Sané euh, Coman ak ki ñu naan euh, Choupo-Moting le ne ñoom ñoo nekk foofee mën naa ni système ba nekk noonu classement onze de départ Bayern Munich contre ki ñu naan Manchester City suñu international sénégalais Sadio Mané ñu leen di fàttali ne titulaire mu ngi ci banc bi espérons mu dugg peut-être jàppale Bayern Munich lu ne mën naa am. en tout cas mu ngi noonee gars yi leen xaar ci commentaire yi ah, nan ngeen ko gisee balaa ñu koy terminer dañ leen di euh, annoncé que ni Joachim euh, doonoon joueur euh, Betis Séville moom nag jël na retraite am international am fin mai il mi mis fin à sa carrière footballistique kookee di Joachim waaye lii gën a neex ci mbir bi mooy que Real de Madrid ay club boobee bu mag bi génn na vraiment ba rendre ko hommage te it Joachim mosul jaam Real de Madrid mu doon geste boo xam ne nii ñëpp ñu ngi koy souligner kon nag Real vraiment geste boobu rafet trop respect à vous gars yi loolu moo nekkoon xibaar gi leen xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo